ak sarak yi ak taalibe yëpp barke sëñ Tuubaa nee na sëñ Fallou ngi nii nee na teew nañ fi yow fii ci barab bi nga xam ne nee na murid saadiq bi moo la ko liggéeyal ngir sëñ Fallou nee na sëñ Abdou Karim ñoom lay sant nee na duñ la sant dañ lay ñaanal ndax cant gi sëñ Fallou ko yeyoo lépp mooma waaye yow saw fan. waaye nee na yow saw fan. nee na def nañ ko suñu sas. bon incha allah. laa ilaaha illallah. ak ñaar seen Basiru nee na ak wér gi. def nañ ko seen sas. laa ilaaha illallah. tey. sànnal leen.